فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جاناك فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا قولي قول يحجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القحار من لبانا كوني له حمدي بما استبانا الحمد لله الذي أحتانا الحلم والحمل والأوطانا له سكر وكفى الشيطان كفاية الباقين ما أعطانا حمدت حمد الحامدين لنا بالقلب قالقا ورا مولانا ñoom ñëpp ay jàng ay mokk ñu mokkal alxuraan di jàngal ay nit bañ mokkal alxuraan fii ci kër gi kon bis boobu buñ ko dee fàttaliku te suñ borom waxoon ne inda zikri saalihiina tanzilu rahma bu ñuy ma bu ñuy fàttaliku gaa yu baax yee yàlla dana wàcce yërmande kon sikkiwul na tey ji yërmande fees na fii loolu nag ku ko dégg te dib jullit wala nga dib taalibe tey xeeñ ci lu baax mais yaakaar naa ne li war a nekk sa yitte mooy fexe ba sa dara dem ca fexe ba fekke ko waaye fexe ba sa dara dem ca ndax ka kat jëf ju gën a rëy la yàlla wax ne jënd naa jënd naa bakkani doomu aadama yi jullit yi bën jënd naa seen alal ak seeni njaboot te loolu du caaxaan kon tey jii ku am alal war ko cee def bu ñëwee bu ñu koy wax war nañ koo sereel loolu li tax ma jiital loolu mooy damay wax ne ñun ñi fi ñëw dañ cee bokk ki tax ki ñu yónni ba tax ñu ñëw fii dañ cee bo da cee bokk kenn yónneewu ko carte d'invitation de kenn publicité wu ko de biig la dox rek ba dégg ñu ne màggalu barsàq day suba la fekk am na rajo bu ko doon wër di ko yéene ci waxtu wi mun a barsàq gan genn mun a ah, mun a ah, dimbali leen ma bu subaa sama ñaq dem ca kooku mooy daam Diop moom Baye Moustapha Diop waa ngi ñëw moom Baye Moustapha Diop Kajoor mu war a ñëw sama kër Ibra Jaw mii waroon faa ñëw teewaf mu ne mënumaa ñëw ndax damay nekk ci di waajal màggalu barsax gi waxal ma daam joom ne ko suba nu mën a def na fa yónnee te na fa ñaxam dugg moo waral tey jii mu yabal magam jii di Alioune ak maman nga xamante ne ni la ci au conseil ak euh, soogitin mi chef de cabinet ak alaaji Baara ngoom mi nga xamante ne taalibi la ci suñu ci fépp mu jox leen ñaar fukki junni ak ñeenti sàkku ceeb ne moo ko barkeeloo ci bis bi te di ko xeeb tey ñaan bu ñëwatee nañ ko ko wax ba mu def ci lim mu war a def defu ko ci nag ngir politique daf ko cee def ngirub taalibe la bokk ci kër gi sëñ Moussa Diop Kajoor di baayam mu war fee def di fi def ndax ku fi def moom nga dimbali ma ñu ngi jéggal kàddu yi nag waruñu fi woon a jël benn kàddu bu miru na mbirum àdduna lañu fiy wut si dañu fee ñëw rek ngir loolu di ci barkeelu di ñaan barke bi yàlla saawaan baawaan ba kenn ku nekk fu mu nekk mu fekk la ci barke borom Tuuba. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Moustapha yow ñi nga àndal ñépp ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. di leen nuyu ci mbooloo mi ngeen fi fekk tey ñuy waa kër Cheikh Ahmadul Khadim ci biir wax ji ni nga ko waxee rek noonu la deme ndax jataay bii li ko waral tey mooy saalini yooyu fi nekkoon su ngeen xoolee kees gi ni mu yaatoo ñoom ñi ñëpp fi lañ nekkoon kenn ku ci nekk mën laa laa wax ne la soxna diw am néegam fii la ko lañ ko sampoon kii fii lañ ko sampoon fii li dañ ko sampoon ba mu daj ñoom ñoo daje woon fii noonu mu ko waxee doon ay nit ñoo xam ne soo leen gisee ci mbedd mi danga naan ñii de ay malaayika lañ ndax seenu melo kenn mënu leen a gis ñeme leen kenn lu leen jàkk ak loo loo baax baax doo leen ñeme loo sàggan sàggan boo leen gisee doo leen ñeme loolu suñu borom ko defoon ci ñoom ak seenu melo kon ñooñu bu ñu leen dee fàttaliku tey képp koo xam ne dégg nga ko mu neex la ci sa xol rek jariñu ngocc sàkkantuma nag ku bàyyi sa yitte yépp booleeg sa wërsëg ak sa yéene ñëw ne dama ciy barkeelu kon loolu mën naa faj suñu aajo ñun ñëpp ak yéen ñi nga xam ne ñoom lañ yónni Moustapha ni nga ko waxee mat na sëkk ndax yow mi ñu yónni ci nga bokk kuy sa baay sëñ Jëng Balla Faali kuy ci nga bokk bee ca biir nga xam ne mooy doonoon néegu maam Cheikh Amadou Bamba ba fa la nekkoon daam mii ma ngi koy defar feeb na ni ñuy def nii fi ne boo fa demee fekk fa jëli xeer yaag jalu jëli beson baag engaarub ciment baag ak feer ya ñu di ko defar te loolu pas-pas a tax te bëggul kenn yëg ko nee na moom da koy def ngir ak taalibe la ci kër gi war na cee mën a def am na lu mu ci mën a defee kon da koy def kon bëggul ko waaye nag man danaa ko wax lu baax ku ko def dañ koy wax waaw kon ñu ngi koy sant ci turu kër gi gépp turu sëñ Ahmadou Muxtaar mi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha tey ak ba ci soxna maam Faati mii di caatum Cheikh Moustapha kenn desut ñëpp a ngi ci biir cant gi ñu ngi koy sant te di ko gërëm te di leen sant yéen ñëpp te di leen gërëm di leen sant ci turu soxna say baara mi nga xam ne jataay bii mbooloo mii moo ko jiite soxna say baara moom sëñ Basiiru Mbàkke moom soxna sëñ Mbàkke soxna loo moo jiite jataay bi lépp lu fi waaye def ay rakkam la fi yebal ak i doomam ak i sëtam ak i taalibeem ak nun ñi nga xam ne it ay taalibe leen kër gi man lu ma am wala ma xam ko wala ma man ko wala ma am ko ab cër fii laa ko amee fii li ñuy wax service militaire fii laa ko defe kon may it maa ngi ci biir am déet kon nag jërë ngeen jëf rek yal na yal na daam lim jublu te sumb ko su gënee ci moom ni mu ko bëggee yàlla na ko sunu borom defal noonu lu kawee njortam sunu borom gudd fan gu ànd ak wér ak ca kaw ca kaw ca kaw ca kaw rek waaw loolu rek mooy am sama waaw sant nañ leen ñëpp waaye duñ fàtte alaaji Abdou Diop nag ndax bañ santee lii mu nekk fi di kilifa di sunu kilifa di mag ñu jox ko quartier bi mu yor ko fii mu bokkoon fi bokkoon ñoom am ba amoon fi soxna kii tey yaayam fii la nekkoon seen néeg baa ngi ne woon nii comme gaynde mi waaw fi de la juddoo kon kooku bu yàlla dogalee mu jiite woon loolu mu daan dox na mu war a doxe ba sunu boroom dem yóbbu ko ci àjjana ya gën a kawe njabootam gi des fi ñoom itam lañ seen bàyyi doon def ñoom ñëpp ñu laxasaayu ne dañ koy def ñoom it dañ leen di sant te di leen gërëm man ñi ñi ñu boole nu boole ma ci itam dañoo xam démb rek lañ xam looloo tax ñu ñëw ne ma ñëwal ànd ak nun kilifaal nu euh, nu bokk liggéey bi waaye man fii lu fi waaye def rek danga ma caa fekk ndax mooy sama lépp kon ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal barkeb sëñ baara kon jërëjëf lahu kitaabi daahiya bima yuhibbu maadiya wa kaada li agraadiya zaadan li daaril karami ya rabbana ya rabbana يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المهترم للمصطفى الذي ترام له الصلاة والسلام ما عن تداه كلها رمت من المكرم صلي على من جعل خطب الوجود نهل وآله سبني وسبيل وكريمي صل على من جهلا خير نبي فدينا حين أبونا جدلا في ديني واتمي وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين العدفياء إمام المعزم وسل يا سنهمتي على رسول رحمتي مخلاك باب بنقمة سبب كل نسامي وسلم يا سمدي على نبي محمد وآله والهمد وكل ذي ترسم يا سلبقى والقدام مني تقبل قدامي والترد تقدمي بها منير رقمي شكا الخيار العرابي شكا المنير العرابي شكا ذاك السبيل طلب طبيب أهل السقم صلي على باب الهدى ناحي المدى مول الندى ليس الهدى ماهردا باب العلا والكرم وسلم على الأمين ساك المكين والمتين ساك المجير والحميد بساسنا واحترمي ساك الوحيد والمجيد الوحيد وهو المبر واللهيد من باستقامة يقود إلى الجنان من حميد صل وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البصير والنذير بنعم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رحب راحتي وذاك ذو الفصاحة ذاك رسول ملحمي صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج أحمد وليكن بنعمي لي جمل النشاهري وباتني بتاهري يا ماهيا كباهري بجاهي ولممي يا من لديه عملي حني على المستمل صلي بكل الكمال مع جميع الأمم وسلم يا بديع على المتاح والمتيع ذاك المصفى الصفيح حبيبك المفقم صل على المبجل يا من حمى عن قجل وإنك هو الجلي وإنه وفقمي يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا منا تقبل كتبنا بمصطفاك سلمي صل وسلم على من حد عجاب بالبلاء يوم ألست أولا قبل سوي تكلمي صل على خير الرسول يا من به يهبو بزول في ليالي وسب الهدول ولتتخبر قلمي حبلي كون حلمي بسارة محددة علامه واكتب به تقدمي بلا حسن او علامه صلي على خير النبي خاد الورى بلا دبي يا من كفاني ودبي بجاهي وسلمي هو الذي فاق سوى من البرايا بهدى حتى بداك المسمى في حتك المحسم وفي الجنان وسقوف وفي بالوجوه والكوف وبرماء وشيوخ حلح كل صنم حاد الهداة لنهيم بحير شكره الحكيم بربي الباقي الحديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي حتى رداء بليلة حتى ولدا فيها المديم المعزم ليلة مولد النبي به ليلة بعوي ريابي ليلة بعوي تعبي وترزي تعصبي على من عليا ولا وجهه ربك مرابا مراب الرسول النبي نجي الإله الكليم الوزير جميل المهيا سقي الهجاء masun li kulli taarix بصر به بخول سقيف ونار له تفنى على خيرنا بالهلا إذ المصطفى خطف بالرجوع فداها لبار الندى من يفوه زكي بمات هدي بخير زما فمات نبي الكريم الهليم يقوف الهنا والردى فلا يصافي فؤادا هراه الأسى ويجلس داوى على ما تمام مدات نبي الكريم تخيل حمدت إلهي الذي جرني إله مات المتبى للبدر حمدت على من أودي حميد إله الذي جرني إله مد المنتفى في مبدي سمام آمين العزيز ما حميد إله بزور له على جذب قلبي له بنثر له بالرسول الذي سرمدا عليه بما تملي فكن سيدي للخديم دني زفيها ليوم الكنا والغلام أبدا وصلي عليه بما تملي فكن سيدي للخديم الدنيم ففي هذا يوم الهنا والغرور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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا يا يبور يبور لا إله إلا الله يقبل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 illa laal yàlla buur di borom la ilaha illa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 مع الأكرم مترى كليتي من البلايا أقبلت أديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب نسليك وإنني أن الأسى بما سلك إذا تلوت آية نلت مناك من مالك ممالك قد أمناك تسلم باخ لا يسال الرحمن أكرمك على لسيلي يودي كرمك أبقى سلامي لسيلي خادك بدل سيهن بردا فانخادك أدية مني لا خير الورك سلاح عليه من هدى وصورك مد يدي لخير من قاد المنك لي بلا أسن وكل أمنك أسنو في سفري ودريك مما يخالف رداء المدري لله في دارين بالنهي يديك بأكبر الونساء تقيدك لي غالب الوفاء بكل ما طلبت مع رداء مسلما أديتي للمصطفى في أبدك بلا نائن وسنو كبدك من سنأنه يكون أبدا يرليه بلا سكة التي بداك نفيت سنه بأني الخديم بما ونا أم مثلي كل خديم فروا وصل عليه إله fel haali wa sabi wa man walaahu dakhul sidaqani min alhidak alayhi talimani min hadak lakul man dayaqani min qablu ولم يث دنيا وأخرى قبلك أدان يا الهادي بجاء الهادي كما تقبل بجهادي وجهر به بقدر السمك سات الكريم مننا ما سمك يسوق لما السيب الانتهاك ولا أسن كمال سير انتهاك ساخل الباقي قلا بالانسرام كن فيكون ليوجه المراب تكريما ليس له انتهاه لأبي تبتدر الله بدر لي جود الكريم وكرمك باخ ودود لا أفارق الكرمك سأل إله أنني مكرمك خلا وهبا وبيء كرمك رليت أنا وأني راديك وكان لي بالأمس أخراديك واجهني الجميع ما بجميل والسوى مختاره للا أمير نفل سلام يدلي وستراك سري وهيبهم بها تستراك براس من بارسني براس من يبقى سن ملتقم البار سمن براس من بارسني براس من يبارس الملتقم البار سمن إذا طلبت من إلهي جلباك وإن صرفت من إلهي سلباك ليجاد بتوحيد ربي الأحد مزياد لي بقل والله أحد له مداد وقلام في الإداق وابن الله نستاء الله من هداك صلى الله سيب رسول الجليل صلى سليل فوقه كل سليل يا من يراك خير الإله رباك وخير أفضل الورى محباك نسى من صدرك ربي نورك كن بالمنيل طالبا منيراك للنور قد وجهت عند الظلمات مدن كفاني الهدى والصدمات الصلوات مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني أن سيوه ورماه مما سجان خس ماه للبحر قد وجدت عند البحر مدن بي قصيت مثل بحر أبو تابدل الورى في البر bi xayri mat in jaadali bi barri xaddamani fil barri wal bahri mahak madula si baran wa bahran jamahak wa jahali fil barri wal bahri al munak man kawnu xayrul wara ma kam munak illa ya fil barri wa fil bahri mahal xayrul wara xayrul futuhati bimar bajjalani fil barri wal bahri imtidak man manu kaba adu bi san sida adiyati fil barri wal bahri sana alla lasi bil عسى أن ينساك محمد بر وبحر لم يراك فيما مدى رسيره لم يراك محمد صلى عليه بسلام فعلي وصحبه أسد السلام حرار ور غيره حرار سنون خرور لرف التفات لا لوم تائبا له من الذنب والآفات وغفور له تبت من عيب التفات لخيره ومني له عهد علي دمير لو تبت سابيهن وارجو رداه ومني له سكر يدوم كثير فجيت ببسر منه أبغي سكوره علي سواء وال مقر خبر وفي القلب من رضا نيما وكنه دنينا به الناس صدور خبر لما رضيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بتيسير وهو خدير فاكرم به ربا نفى عني الهدى وشاق المنادي والجناب حقير حنيت به ربا ولي أن يقود لي مرامي وإني شاكر وفخير أموري لا فوته والقلب طيب خريبا لدى الأهداء وهو بشير رفيق نولاي والمسلمين وبطيبة وإني له جار هنا يزور خاتم وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وقد تبدو في البحر سير انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي نفسها هنا وأنت بمارك الصلاة جدير فتى الخالق تهجيلا أو بي بالمنية فساكا على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور التي هنا وغدا يوم سماء تمور وخني من الفجار والبارخان من إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر سوي الإسلام بي عاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير من الله سرمدا على خير من تسقى إليه أمور على خير خلق الله تران محمد سفيه لسي كله يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الإدامان سوي سبياني كل من سيجور على خلي صديق رضوان ربي كما غارنا في القارين يسير على سيف الفاروق من ربي ردا كبير كما خزف وهو وسير ومنه لسنورين ab xeeri daaho kama waasa min noorayni wa wa sabooru ala waalidi sebtayni asnaari dan kama abadal hidaabi zaybi wa wa zayru ala jumlatil ashaabi rirwaanu rabbim دوما جار في زكفور بهم ارتجي من مالك نصرها لا سيفرك بالتسليد حين تجور يسنونني وقت اخترابي لديهم أسيرا لهم والكل سميه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa inni uhisuha bika wa surriyataha min asheytaan arrajim rabbi ahusu bika min amasati sayatin wa ahusu bika rabbi an yahdurun bismillahi arrahmani arrahim ahusu billahi min kulli durrin ahyaytu mawlida nabi min assasi وغادني فوق المنى في طلسسي أهيت مولد النبي من أسسي وغادني فوق المنى في طلثتي علمني مما يشاء الله ففر إبليس ومن والاه واجهني يوم الخميس في رجب بما يدوم سرمدا خير عجب سبم بي هاتي لخيري بسمن الله خالق البرايا وسمن برأني القدوس من أمرادي وأسكن أعظم في أعرادي إذا كتبت أو خرهت جاء إلي ما يؤقه الرجاء لم يبخ بيني وبين الرب مكدر وغادني بالعب لم يبق بيني وبين المنتقى سلا عليه اللهم مانع ارتغى allahu rabbiya wa xilli wa xabib walmuntaha wasilati xillu abib haraba iblisu li xayri darari ma abilihi watan mudurari maddaliyal naafiwu nafan asuma wali siwaaya daaman taassama nawaytu sukrallahi bilkitaabi wasaanani llahu an ilcitaabi karamati xatu yadi wali jasab أعظمه ربي بقت فانجسب لقنني في القت مهت الوهي وللجنان سار أمر المعي لقنني تعار لبي سلما كلي ساكرا لدي الخلما دمتني الأخلام الجن الكرام وغاد لله بها خير المرام ردت كتابتي إذا لاكي إلى سوى جهتي وسفرت بإلى رفه ما كتبته من أسسه منبئا في رفعه في طلسسي بشرى لنا قد أتانا الجود والكرم لما استعلت علينا لسهر العرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من عرموا نرجو من الواكد القهار خالقنا قهر الإداء وهو جبار ومنتقم وهو المقيس الذي أرجو إقاسته ولست لنفس في دارين أنتقم وهو الأكيم الذي ما شاء كان وما لم يك سائيه فدهر ينعدم له البرايا له أفالكم وله جل الوجود الذي قد سانه القدم فمن له جل ينمي سرمدا ولدا مسلسا فيه قد سلت له قدم توبوا له يا سوي التسليت في عجل وسارعوا قبل موت بعده ندم لربكم سارعوا مستسلمين معا بخف من سوسيت عن اسمه سلم الله باق قديم لا يسابهما بالبال يقتر وهو المفرد الألم ومن يسابه musallit faridan malikan samadan fajahilun wa yulaqi kullakul alamu antum huyara usara lillahini ma'an sumun wa umyun kasafil ahsunil bakamu inni la ahmadu rabban la sharika lahu fil barri wal bahri wa huwa al wasi'ul akamu aduhu wa huwa karimun la yuqayyibuni bi isnihi min utati qalbi al ikamu wa huwa allazi kawnahu li dahra farra'ani wa an fuadiya salal sakku wal qumam هموا يا ليت قومي في اليوم قد علموا بكونه لي إسعني مع الأمم قد كان لي ولك السكري ومحمدتي له فؤادي والجسمان والقلم له سكوري بقرآن أرات له من ساءتي لارتفائي وعولي ولم وهو الكتاب الذي من كان خادمه سكن له علم والأعمال والصيام wa innani ahbudul mawla bihi abadan saa xidmatin li safiil jooduhu diyamu wa huwa alkarimul lasi arjo bi xidmatihi ma faaxa maalisul ayrin qaadahu arimu arjo bi xidmatihi kawni una wa xadan handal muqaddami mislal saabi man karumu sala alayhi bi taslimin bi man mahahu wa kaana li wa bihi li raada man urimu wasaaxali kullama ahwa bila talabin sawxan bihi yastabiinu aljuuda walkaramu maadaama rabbi wa daama almustafa wasari wa bilbusaaraati taati lasuru alxurumu mudda xayaati saata tuulin wasaha yaa xayra muxnin qad wahabta tawsiha naajeetuka allahuma sa rajaahi min ka tiwaala alumra sa najaahi atil ayaati bidawaami alaafiya abdan qadiman bilquyuuri daafiya waliya ab ma sixtu fi dunyaaya min almanaafi فيه وفي أغرايا وأرم جميع موصيات ضري دنيا وفي القبر ويوم الأسر صلي وسلم من يا موقر على محمد ومن قد نزروا وآخرنا أجلي وموتي أتى أهوس درك كل فوتي سبحان ربك رب السماء يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم rabbi bima yasrawul asana xat faja bi jaay afdal liman lilaay xat laja rabbi bima yasrawul asana xat faja بجاي أفضل لمن لله قد لجا حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا شاتئا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل بكلام أنو إله الذي هم من مواهبه لجملة الخلق ما يختار من بريا ناجيت جل أهوى من وكرمني تكريم هاد وكل من لقى البريا وهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن شر من قرآن خراب حتمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا عادي الردى xannaahu alxalbu min dararin bi jaay afdal liman lilaay xad la jaam aousubillahi min alseytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala al haadi al amin wa mawlana muhammadin il wa ala alihi wa sahbi sawiril waani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi yëkkati bu ànd ak ñaan ak siyaara jëmee ci kaw ci kilifa yu tedd yi fi teew ñu jaarale ko ci sëñ Ismaïla mi toog mu jàllal ne ni ko ci Seex Mamadu taxaa Mbàkke mi nga xaye moo toog tey ci bunt kër Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi di siyaare mboolem ñi fi teew ñëpp ñi ñu tudd dañu ñu yóbbaale ñi ñu tudd bàyyiwun kenn di rafetlu bu baax jotaay bi nag daje bii nu di ko rafetlu bu baax xam ne bokk na ci daje yi lislaam yi di daje bu yàlla gërëm te daje bu yàlla gërëm yombut ci jamono jiinu ne waaye bii daje moom bu yàlla gërëm la bu yonent bi gërëm la bu Serigne Touba Xaadimu Rasuul gërëm la ndax day day dajeb lislaam lépp day lislaam di dajeb njégal itam nga xay ku fi teew rek te teew fi ni nga fi war a teewe soo fi jógee suñ borom jéggal na la dajeb njégal la ndax pàkk bi moo ko woote pàkk bii doon benn pàkk boo xam ne benn pàkk bu mel ne moom gisee su ko déggee su ko ci jamono amut fii la Seex Ahmadu am fukki ak juróom ba dugg juróom benneel ba li fi liggéeyal yàlla ak ab yonantam waaye di xettali doomu aadama yi di leen dimbali ci saayir ak ci baatin waaye ñim àndaloon te ñu jaay seen àddina jëpp jënde ko àllaaxira fii lañ nekkoon ñu di bañ nit ñi tudde leen waa barsàq nekk àddina di dund ñu tudde la barsàq waa barsàq kuñ ko tuddee xam nga ne mooy koo xay yow nekkatoo ci àddina ñu nekkoon fii di fi liggéeyal yàlla ak yoon bi ak Serigne yor fi njaboot njaboot gi ñu fi yar yoroon leen fi njaboot googu di leen fàttaliku mais du du ñu ñu ñu fàtte sax waaye alxuraan moo ne fa sakkir fa ne secret tan fa wal mu'minin yàlla moo ne dee leen fàttaliku ndax fàttaliku day jëriñ ab jullit nit ñi nekkoon fii kenn du leen fàtte waaye njaboot gi nga xam ne dañoo nekkoon ak ñoom ñu jébbal leen ñuy ay ndaw di tuut tànk ñu nekk ak ñoom duñ leen yar di leen wanale ci yoonu yàlla ñu dem ba tey ñuy ay mukàllaf fàttaliku fi ñu leen jaarale seen xol sedd seen xel dal seen yaakaar gën a dëgër tax saa yu bés bi ñëwee ñu dajale seeni wërsëg dajale seeni jëmm dajale seeni xol daji pàkk bu tedd bii di leen fi fàttaliku di def ay ñaan di def ay mberde di jàng alxuraan di jàng salaatu ala nabi di jàng xasida yi sëñ tubaay yi di def ay lixlaas lu ne ñu di ko def ci lu baax ngir yéene yenn yool ba mu delluwaat ngir jaajëfal leen ndax ñoo leen taxaw taxawaay boo xam ne benn taxawaay bu ne rafete amut rawatina ànd gi nga xam ne ànd nañ ko sax suñ boroom dafa wax ci alxuraan ne waxtasimu bi ablillahi jamian wala tafaraqoo suñ boroom ne yéen ñëpp nangeen ànd doon jénn jëmm loolu nag bi ko yàlla waxee boroom xam-xam yi dañoo jàpp ne kon lislaam war na dañ mukk di bëgg société islamique société islamique nag weesuwul mbooloom jullit mu ànd ànd ak xol ak ànd ak yaram sësalante seeni wagg ba nga xam ne saytaane du mën a am benn bunt bu mu mën a jaar ba tabal ak yàq ci seen diggante kenn ku nekk ci ñoom lu baax la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom te ñu nangoo daan seen doole te tënk ko ci lislaam ndax lislaam liggéey la ak jaamu yàlla doxin woowu nag mooy doxin bi nga xam ne mooy dundal mbooloo dundin wu rafet rawatina mbooloo moo xam ne bokk ak lislaam dox na seen diggante bokkuk jege ñaale dox seen diggante bokkuk dëkkandoo dox seen diggante te yàq yetti bokk yooyu gu ci nekk dafa am ay àq waaye ne ne matal ngeen àq yépp kon yàlla na leen suñ boroom doolee taxaw ci saayir ak ci baatin kon bis bi ñuy wax bisu waa barsàq bisu waa barsàq mooy bisu maam ma aram bisu waa barsàq mooy bisu maam maxtaar ndumbe ma sancoon kokki bisu waa mooy bisam amaat buso bisab waa barsàq mooy bisab maam musa ñolle gay mooy bisa maam aale sene ba demb binta maxtaar bis bii mooy bisab maam Demba Bunna si bisab tey mooy bisab maam Njàmme baaba ak Masata baaba bisab tey mooy bisab Serigne Ngeen Sëy bisab tey mooy bisab maam Demba Njare bisab tey mooy bisab maam Lamine Dem bisab tey mooy bisab maam Xaadi Surang bisab tey mooy bisab Buur Siin Waagaan Fay bisab tey mooy bisab Kumba Mayaan Juuf bisab tey mooy bisab sëñ xube Mamour Jabata bisab tey mooy bisub sëñ tay ba Dakar bisub tey mooy bisub maam Malamine Sarr mboolem fukk ñii ma lim di fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yi ma lim fii su fekkoon ne waxtu wi da koo maye danaa leen wax li ñu bokkantee ci barke borom Touba ba seeni sët di yenn sët ci seeni sët rek ñoo fi teew ci saayir ak ci baatin kon du man lu dul. siyaare njabootuk soxna Faati Jaxate soxna Faat Jaxate ak njabootam la nuy siyaara noo ngi siyaare njabootuk soxna Aminta Jobbe ñi nekkoon ak moom fii noo ngi siyaare njaboot ak soxna Seynabu Mbakke ak njabootam ñi nekkoon fii noo ngi siyaare njabootuk soxna Mbiye Jóob ak njabootam gi nekkaloon fii noo ngi siyaare njabootuk soxna Jobbe Jóob ak njabootam gi nekkaloon fii noo ngi siyaare soxna njaboot ak soxna Xaar Jóob noo ngi siyaare njaboot ak soxna Aminta Diop noo ngi siyaare njaboot ak soxna Aminta Gaye noo ngi siyaare njaboot ak soxna Absata Diop noo ngi siyaare njaboot ak soxna maam Faati Ñaan noo ngi siyaare njaboot ak soxna maam Binta Ñaan noo ngi siyaare njaboot ak soxro soxna maam Roqiyatu Sugu noo ngi siyaare njaboot ak soxna Binta Guèye noo ngi siyaare njaboot ak soxna Faati Amar ñii moom lan fi jamonoon teeloon daa leen fekk fii ci biir kër gii ci saayir ak ci baatin ne ëpp nañu ñooñu danañ ci ñëw waaye ñii nag moom danoo jamonoonteeg ñoom fii daa leen fekk fii ñu di nu jàngaloo ay xasila di nu waxtaanloo ci Serigne Touba di nu binduloo itam nag amoon na fi wal baladu boo xam ne Serigne Touba ci jëmmam moo moomoon wala du wal baladu boobu njaboot gaa ngi dégg samay kàddu te ñu ngi toog wal baladu boobu jàkkee Serigne Touba ji. ci la nekkoon ci buntu jàkk ja ñu bind ca xasida wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi mbind moomee sëñ ma sàmm Mbàkke ba ci entretien boobu bindaatoon ko gannaaw ba nga xamee ne seng yi tàngoor wi lakk na mbind ma ñu soppiloo ko sëñ moor Mbay Siise sama sang ba moom waabar sàq bindiloo ko ko ba tey bañ demee ba mbind moomee euh, tàngooru seng yi jàpp ko man mii lañ woo fii sottiloo ma ko maa ko soppiwaat may bindaat mbind moomee fu kayit wa ma mën a nekk tey saa mbind moo ca nekk waaye ñii nag laa daan fekk fii ci jamono yu nekk eh, ci saayir ak ci baatin waaye xam na ne soxna Aminta ma Samba nekkoon na fi soxna na xam na ne soxna Mariama Mbacke mi ngi fi woon soxna Xari Penda Fall soxna Astu Jaxate soxna Njaxat sil soxna Faati Samba Diop ak ñeneen ñi ci des danañ ci ñëw dañuy tàmbalee ca xasida gi nga xam ne sëñ Omar Fall Pire moo ko def jëme ko ci. njabootuk sëriñ Tuubaa gi xaalal muridul faqir tawasulil yowma bi xaadimi nabi wa ahli baytihi sawi taqarubi tawasulil yowma bi nabi wa ahli baytihi sawi taqarubi lu immina jature mun qutbil wara fatimatun ralliya anhu sul wara haysatun ahmadu habdullahi li faate samba min abibillahi wan sub muhammadan li pende siise wa ummi kulsoomin min arraisi fa ahmadul yadaliyu lmakkiyu li ummina maryama ya uqayyu miman bihi baaha rijalu ndayi mahan lada jihadi ilahi li ummina aminatul marliya min hasil fakhri bi khayri mariye khalifatul qadimi wa huwa almustafa wa ahmadul lamin man naala stafa min alasi jahada kullallahi bila suyofin bal bi sikrillahi luhumina hawa maryam falilu fatimatun miman lahul falailu fa pende buyo qad awat min alkhadim fatimatul alihi rilwaanul xadim li ummina ya saahi fati fatimatu maam mouhamadul basiru min man kaana imam suma laha xadijatun bilamtira min xayri nabin min rabbi sukra li ummina aïsa qul min alxadim mariama waxdaha farum ila alxadim fa sayidi ahmadou habdullahi najil xadim ibni abibillahi li ummina fatima binti mariama habli biha xaysan muqisan rawma li ummina xadijatul kokkiyi rabbi halal xasiidati marliya haisatun muhammadul muxtaaru haisatun mi man huwa al muxtaaru li faati silla umuna al mashuuru muhammadun masku muhammadun muminatun maskuura min sayidi man xad awal baratiba wala yasaalu qaari'an wa kaatiba bi umina bintu madun sambalaha fatimatun laatan kiranna fallaha roqiyatun muslimatun muhammadu kasaak kamu ayminu kasaak muhammadu roqiyatun muslimatun muhammadu habdul muhayminu kasaaka hamidu laha min alxadimi aylan murtala halal habibi laha min alqadimi aylan murtala halal habibi abadan xayru lila limina min almusubi amina maymunatun min kulli haybin amina xadijatun laha wa abdul xadir min silbalaxati min silbalaxati fasihil mahiri limina yasayi fati jaxate taahiratun wa saalihun soo bahjati habdu ulufin saahilil quduusi wa habdu baaxin nihma jaar aisi min xudwati anisil almbakki rafiixina wa jaarina alxaliyi luumina xadijatul piriya wa huwa alfataatul baratu taqiya aminatun habdu jamilun habdu alwaahibu wahaabi nihma alhabdu summa abubakrin kasa muhammadi min haasil qadimi nihma almufradu luumina faambiya maryam ahsanu aminatun qushaasi mustahsana min xayri waalidin أنار البلدا كما أطاب النفس لي والخلدا لمنا سيدتي مريما جحت صادق الألي تفهيما صعيب عبد الله صعيب عبد الأحد المرلي من خير ندب دونه تقي حوت من الخديم عبد الباخي هائسة بفعل رب باخي فخرسل قد أود من الخديم فقد فقرسل fa xari sill xat xabat abdou samad min xayri walidin yijoodu bi nadat fa xari sill doonat agrarin laha may muudadu uxra fa ahrifikullaha min saydi abdul ilahi wa xadim rasulil muxtaari habbasal karim lumina hanta min almusubi ahmadou abdoulahi min habibi xayru xadimin malahu mujaari ila rijalillahi mima jaari lumina khadijatul kokkiya habdu salami ummu amarliya minal mujaddidi lasi khad jaddada milata sayyidil wara wa ayyada lumina ya sayi fati jakhate sil anilni rabbi khayra bahjati fakhat fatimatun min khayri saykhin wa sanat khayra mulasin wa muhinin multaat lumina ya sayi fati qujja haisatun liman khadali bahja min sawrihi li humratun wa hajja wa abahu khada kafani hujja fa umina saynabu mbakke hasat maymunatun aflalu bintu faaxat min al siif xawal xola fi lqadami min man kaana lii fii abadin bil karami li mina saydati maymuna jaxate xallit lii biha mahuna maria bintu xaadim al muxtaari yi habdun alayhi habdun sar rilat baari mariama bintu xaadim al muxtaari alayhi sarmadan rilaawul baari salimatun bintu habibiya wajaar minhu man soo man soomatun li ummi tut xaa soxna xaar li mina sayidati aminatu yi jobbi abubakar ilal fasa ilal wasitati li mina sayidati agiya aminatun xini biha rasiya fatimu umwa laha abdul ilah miman bihi rajawtu kawni naylla li mina fatimata luxra ayla ya sahi ibrahima taaba rawla alal xadimi wa alal abnai wal ummaati akbaru lilwani suma alal muxtaari wala lil kiram wa saabil xuri salatun wa salaam subhana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin xasida googu juróom benn fukki tur ak ñaar mi ngi ci fanweeri tur yi ak benn di way jur yi ak benn di ay leer yooyu Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam moom la sëñ Moussa waxaat fii moom itam ci wolof bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa tasliman hasa sulamul hasiqin ila adratil asiqin fi nasmi ahli saykhina ahmadul makki nafa'ana allahu bihim amin yaqulu Moussa ndaama day yuqoolu ndem jël bëgg naa jot ca la bëri ay njoolu yaqulu Moussa ndaama day yuqoolu ndem bëgg naa jot ca la bëri ay njoolu ndaxte bu nekkee waaju am maqaama mu far ko tooñ ko ci ndajaama waaju amul war naa ne nangoo dagaani ci ko du jeele mbaag mu jëm yalwaani ku dul mërit war a farag laa ngam ga ku dul rëbbit war koo yoral loo ngam ga ku bëgg a jàll ak dex jubool ak mool ya mbaara ko mooy jësige ca seeyeel ya noo ngi dagaan ci daraja yi sa doom yi ak daraja yi sa doom yi waa kër gi am sa koom yi jiwén lu bon bon war a xam ay sangam te sang yii way leen dem way kàngam jiwén lu bon bon war a xam ay sangam te sang yi way leen a gën way kàngam sàmmaytuhaa bi matlabil haajiyaati fii nasmi ahli sayxi way sawjiyaati li tax mu di wolof li gaa yi jàngul ndeman na ma away ci xarab lu dëngul ci darajey doomi Serigne Touba yooyu fegal nu saytaane yi ak tubaab yi ci darajey taam ba nekk Touba ak ñi ca firdaw seek ñëwey ba Touba laa way kerkeraan bu jëm ci Bamba ndax nuy dem baatinam bu bés baa ci darajey Muhammadul Kabiru la ñaane Bamba may nu may gu biiree ci darajey Muhammadul Yaddaali may nu maye xutbu ya ak labdi ali ci dara ji ahmadou saaka moustapha lan ñaane bamba may nu fu nekk tane fa ci dara ji ahmadou saaka moustapha lan ñaane bamba fu nu nekk tane fa ci dara ji ahmadou waxwal faalilu may nu ngëneelal yaari kër ya nu falu ci dara ji muhammadul laminu yàlla nu yooloo dénk moot aminu ci dara ji muhammadul basiru bis bu nu faatoo nan la dal si aru ci darajay kañ tudde abdullahi nangul sunug jaamu joxal nu laayi ci darajay rakam ja ibrahima fegal nu lammiñ ak bët ak luy njuuma ci darajay kañ tudde abdul ahadi ak darajay kañ tudde abdu samadi def nu boroom tawhid te def nu pas-pas def na boroom tawxiid te may nu pas-pas te def nuy xilifa yi dees nuy rus ci darajay kañ tudde Abdul Baaxi ak turandoom wañu ne Abdul Baaxim def na salar yu ñëpp dem nu des fo te sax ci ay digal nga may nu kas fo ci darajay kañ tudde Abdul Xaadiri ak darajay Abdul Jamili Saahiri dolli nu kattan te wéral machine bu te rafetal saahir su ak baatin bu ci darajay Abdul Salaam may ma mucc ga ànd ak nu gudd ak xaymaa ci Abdul Xudoosi ak Muxtaari ak Saaliwun ak Ahmadul Muxtaari ak ahmadul muxtaarim sellal nu tànnal nu jubal sunuy biir ban mel ne gaa yi nga defar ñuy say bër ci abidil wahaabi ibrahimu may nu ci biir ak biti may yu yéemu ci daraja yi abdul muhayminu nosal sun ruu yi wammat bu nu roy bu nu boyal su ci daraja yi abdul muhayminu nosal sun ruu yi wammat bu nu roy buñ nu boyal ci daraja yi sadiixu ak ci murtala ak ci abi bakrin saxal nu ci rila ci daraja yi amidu ak suaybu santal sunuy jëf te xamal nu xaybum ci ñetti doom ñetteele wuy ji lay nga tudd leen ahmadu abdullahi nan nan boole may yu jëkk yàgg yu mujj ya te nga fegal nu nattu yey dal xeej yàgg ci darjey Muhammadu ak Muhammadu ak darjey seen ba Ahmadu rokkas nu baat na nga nee li tur yii lamb nu nu mel ni bëri yi alayhim rilwaanu rabbi naasi te yàlla xajal nu pexem xan naasi yàlla ñu aw seen tànki bàyyi nu topp leen te yàlla buñ leen jàpp leen doom yu góor seen i tur way naa leen naa jéema way jigéen ñe xam naa leen doom yu góor seen i tur way leen naa jéema jigéen ñe dem xam naa leen sunu doom yu mag ya ak sunu ak sunu doom yu ndaw muawiyam ci darajey soxna su mag si fatija yal na nu ànd ak fati bintul murtaja ci darajey kañ tudde ummi kalsoom yal na sëriñ bi rafetal sunuy doom ci darajey maryama soxna kunta may nu ndax dun tayle dun fab kontu ci darajey haisatun ak amina ci darajey haisatun ak amina bul yite woo kenn ba tax nga fàtte ma ci darajey roqiyatun wa fatima fab ma ma jëm kaw te nga yor ma atte ma ci darajey haisatun ak amina dundal nu waddunu jëndal nuy damina may muunatun may muunatun may muuna tijjil nu manga siini barke may nu muminatun muslimatun ak muhsina xaylel ndoxam nga mi nga yor nandal nu ci darajey maskuratun xadija tairatun salimatun xadija sàmmal nu cër yi sàmm sellal nu yéena nuy sant ngay dolli te bul ne jeex na ci darajey mariama suma maryama sumata maryama limay ñaan fardama ci darajay maryama suma maryama sumata maryama limay ñaan fardama may nuy ngërëm may nuy dërëm seexal nu te boole noog jàmm ku yiw feexal nu ci darajay aminatun ak aysa loo deeti séddali ndaboot gu naafisa ci darajay fatimatun ak fatima aminatun aminatun bil xaatima faral sunuy xëyib musal nu ci kañaan jéggal nu sun mooy yi nangul na li nu ñaan fa suñ fi asmaay ma dellu teg ca doom ya seeni way ndax yàlla jéggal seeni waajur ndax yàlla jéggal sunu ñaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal sunu ñaari waajur ma dellu teg ca doom ya seeni waajur ndax yàlla jéggal sunu ñaari waajur bi dara jaati lu miyaati may nu lu tax jigéen ñu baax ñu ñëw séyal nu bii mi naa ma jëkke soxna ja Ture ndaxte nu am ci dara jaam doom ju tari bi mi naa rakkam ja soxna mbiyey Mariama nan taqaloo bu dara tax nga sori moom bii mi naa mañ tudde Hawa Buuso may nu cofeel nu sa ween nu muusu bii mi naa xamal nu yàlla bii mi naa muñ tudde pend siise yaatal nu jox nu bu nu kenn siise bii mi naa amin tin ma loo bi ummi naa muñ tudde amin tulloo may nu ngërëm nu mel ne góor ga santuloo bii mi naa muñ tudde pend buuyoo yal na nu Seex Bamba musal ci mbooyoo bii mi naa muñ tudde faati hasana may nu huseynu dellu may nu asana bii mi naa muñ tudde faati samba yamal xiyaamati nu ànd ak bamba bii mi naa muñ tudde xaddi samba xajjal nu saytaade fegal nu sanba bii mi naa muñ tudde faati ma du maam yal na dund dund far ba dégg maam bii mu naa mañ tudde ma du maam yal na nu dunda dund far ba dégg maam bii mu naa dee tudde Haïsatu Jóob notal nu ruuy bu nu teg nit mu ne ciib bii mu naa mañ tudde Faati Silla may nu ngërëm te may nu mbég ak fulla bii mu naa mañ tudde Faati Jaxate fajal sunuy haajo te far nu joxati bii mu naa Aïsatun ak Mariama bii mi naa aysatin ak mariama lu ma la mooy mooy bu mu tax nga mere ma bii mi naa tu tudde faati tuuti naddil nu bóot ya bu nu sompal tuuti bii mi naa rakkam ja soxna mbiye ya waxal na sun waa kër nu roy ca jiye ya bii mi naa mañ tudde faati xujja sarax nu jikko ju rafet ban xejj bii mi naa mañ tudde faati xujja sarax nu jikko ju rafet ban xejj bii mi naa mañ tudde soxna faatma ak turandoom yàlla bu waxtu ma bii mi naa aminatin wa anta yàlla nu yëkkati nu mel ne jant bii mi naa xadijatin ma sant jëf joo xam ne jii dana nu joob fegal nu jëf joo xam ne jii dana nu joob bii mi naa xadijatun ma sant faal faal fegal nu ful nu fal nu leeral la nu taal bii mi naa xadijatun ma sant faal faale nu ful nu fal nu leeral li nu taal bi uminaa xadijatin ay jaxate sun xol yi teeyal ko xelaw bu mu naxati bi uminaa xadijatin ay sill duy nuy ngëneel te def nu ndab yu sell bi uminaa may muunatun jox nuy may fii saa'irin bu baatin te fekk mooy bi uminaa sëy na bu may nu ak nooy te may nu kersa te fegal nu ay dooy bi uminaa sëy bu may nu ak nooy te may nu kersa te fegal nu ay jooy bi uminaa mañ tudde ku jëkk kumpa xajal nu xamal nu baatin xamal nu baatin te dijil te tijil nu kumpa xamal nu baatin te jil nu jóob fegal nu xaaraan te wutal nu dabi ceeb bii mi naa mañ tudda xaar ma sant jóob fegal nu xaaraan te wutal nu dabi ceeb bii mi naa amintin ay jobbe yàlla nu mucc lu basak lu jàppee bii mi naa amintin ay jobbe yàlla nu mucc ci mbasak luy jàppee bi mi naa mañ tuddee bii mi naa njaxat ma sant silla wutal nu ay super wutal nuy silla bii mi naa mañ tuddee faati manti jóob fegal nu tabbi ci lu tax ñu ne nu wóob bi umi naa faati bi umi naa bi ummi naa mañ tudde fatimatu jóob fegal nu tàbbi ci lu tax ñu ne nu wóob bi ummi naa mañ tudde soxna jóob njaay musal nu noog sunuy ndey ak sunuy jaay bi ummi naa mañ tudde soxna ammar fegal nu ab xiif te fegal nu aw mar taxawlu naa fii la ma yàlla yam loo ki may digal sax moo ma far taxaw lu naa fii la ma yàlla yam loo ki may digal sax moo ma far taxawloo biis ni rabbi abidi rahmaani muusam ni usmaani ca lay baawaani ci daraje mboolem ku nekkoon jaariyam di kuñ xam ak kuñ xamul ak kuñ daariyam ci daraje mboolem ku nekkoon jaariyam daareem di kuñ xam ak kuñ xamul ak kuñ daareem sunuy murit fegal nu suñu jigéen jéggal nu seeni gaajo mboolem suñuy bokk ak ku yaakaar bamba yal na nu barke way wi dal bu bés baa mboolem suñuy bokk ak ku yaakaar bamba yal na nu barke way wi dal bu bés baa amina amina wa sallallahu ala nabiyina wa man walaahu muhammadin wa alihi wa sahbi wa kulli muntamin loo fi lisbi wa radiyallahu anil xadimi maa talamisati bil maxdumi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun mursali walhamdulillahi rabbil alamina mu jóg bégal muriiti sayx yi bamba ci wolofal ndax ñu fegal ma samba mu jóg bégal muriiti sayx yi bamba ci wolofal ndax ñu fegal ma samba mu jóg bégal muriiti sayx yi bamba ci wolofal ndax ñu fekk almasan ba ngir rek sarax def da ca sippi bàkkaar te wax ju neex sarax la ndem du bàkkaar it qaalu xayrin wa suróodin abata ala xuloobil muminina ya fata it qaalu xayrin wa suróodin sabata ala xuloobil muminina ya fata ku yeewul waru la yee moroomam ku yorwul mënu yar ayit maasam waaye dañ tee ma jóg di di sakku barke waaye du tee ma jóg di sakku barke di way sëriñ Tuubaa sangu waa Mbàkke yii moo waral fii leetil xamiisi ci weer wi Seex Bamba demoon Sanusi ma fokk fanaan a xoole ngir sun waaja ngir di xalam mbirum borom jumaaja fekkoon na may nisar li wacc lay ay fani fan way ko bi duuni lay ngir li ma gis ci moom ci xeeti xar baax ak nga neel saa bi di sa den ak suux ma yeewu naa ko xaadimal muxtaari wuyu salar bu woon bi lay si aareem yow la ñu may kun fa yëkkoon loo atte mu daal di am fa saasa bul nu fàtte yow la ñu may kun fa yëkkoon loo atte mu daal di am fa saasa bul nu fàtte la gaañe daa xëccoo ci ay maqaama am nga ko fi raw soga gaa yi daa xëccoo ci ay maqaamam am nga ko ci kaw soog a sóobu ngir nga péye dolli ngay karaamam gaañu ween rew ya am jaaraama dolli nga waa bar nga ren yaraanga yaa xami ma nga siini rabbi neesi fegal nga say soppe pexem xar naa siin diina jiw lay puukaree fa yàlla yow la takaayoo mbakk la yaa doon baatinab rasulul Mustafa naka nga taawlu tudde am dil Mustafa sàmmal nga gaañu jiite woon ca baawoon ñëpp a ngi lay siyaare bil ca ñaawoon dëggal ga woon ca Babacar Siddiqum tawfi taarixi Seydi ma aram yaa ji teen bu wiis yaa jajji teen bu wuutu biiru sam-sam kersa ga woon ca Seydi Ousmaana nga doon yaa yeesal mbirum qur'aana wóolu ga woon ci wàlli di sibta yi ni nga boole ak njàmbaar ga doon a may sa gaal gi kum yóbbaalewul moo tarde sañ-sañ ba woon ca Seydi Jiilaani boole nga ko sëriexatu Tijaanim yaa raw xasaayli yu ci fànni xam-xam xëccoo gulaanu aduna ak am am yaay sant yong ba daa misaali ci seeni téere ya nangu fab yóbbaale yaay sant yoon ba gaa yi daa misaale ci seeni taalif nang nu fab yóbbaale yaa joti diine ba mu demee maayom ba caa njafeel yaa xut bu géej ga bamba sigal nga alxuraan waxal téeréem ba waaja suy jaafire jaajëf bamba defar nga ay bër boole leen ak mbooloo ba seeni doom ak seeni sët am mbooloo waaju la waayoo daal di raw moroomam waajoo gërëm mu gën gëndaloog boroomam ko yewi koo fiyew nga booleeg mbooloo muy sama daay ab jant am wusoolum taalifi nga fànn yëpp balla ay sa sa ndam du soolu mbàkke yaa di gorsem jéggi nga màqaamay sha'ri li ay jëmmonte nga ak ahlu badar bi li ay gannaaw rasuulu kenn gisul jibriilu kulul sëriñ tubaa borom jëmmiilu xaalim yi daal rawante yaa leen si amal sëriñ bi yaay kenn sam kem feeñul sa sa yoon wi mu ab dër la ci diine lislaam sag langatal na nag may xar maraam ku la siyaare daal di tàggoog bàkkaar ku la dëkkal dëkk ak rasuul doo ñaar yaa yaatu yaa tabe te yaa dib yaa gore yaa raw ba rawale waa kajoor yaaraw am lu kenn amul la jiitu aadama jàmm nga yàlla ati at lii biir na ma kenn mënu laa soofeel nga soofee waaju la Mbacke ku ne junet ci ñoom nga may ko barke sigal nga waa Mbacke sigal mbusoobe defar nga néegab seey defar doroobe yaa tax ba doomi soxna yi woyaflu sàmm si tuub sëriñ bi yaa selnglu yaa tax ba mbër siin ku mbëndoo feen jóoru siise soppe bamba xawsul wara fil asri neel raaray ba nee na ku nekk la mu doon ci bamba moo ko defal lam xam yëral ma day ba il ma waddata wëral sëriñ ba def ko jox hadiya ngir yonnen ba sëriñ bi am na ba desal ci boppam te kenn taxul bul ko werante lii am Cheikh Bamba yaaraw kaxabak asaana tagg Moustapha ba ni adnaana fu njàngal saw ah, taalif xars di jaayu malaaka yi sa gaa sa malaaka yi yëg sa balaka yi yëggaayu isaa katabtu tas sa arsul baax yi wa sabat malaykati baax yi yaa ame caabi magasin nguur gi yaa jëru jox addiya màggal nguur gi waaju loo jox addiya tàggoog bekkoor siyaar bu ñibbi tàggoog bakkaar Bamba gaaña de boon sar saara siyaara daam tàggoo nañoo aw saaram yaa laa weranti mahiya leeral mahaniya weral mahnawiya kenn woola wax foore kenn waru laa wax foote foore mbaati alim ma foos nga daa gàggante yaa di alim kenn waru laa wax foore mbaati alim ma foos nga daa gàggante yaa di alim kenn waru laa wax fóori mbaati alim mos foos nga gàggandi yaa di alim foo sa teew mu dal di mel ne marché kenn waru laa sànjaaka dox di forcé yow foo fanaan sikar la ñuy fanaanee foo wan gannaaw sa mbir la waxtaane loo jublu yàlla dal di jub loola loo dëddu yàlla buur ba dëddu loola gaañu sayit xare badar ngir wóolu ànd ak ngir wakiilu ñu ngi lay siyaar di dem di leen si yaale ngir li nga xam bi xidmatil xaliili xam-xam bu doon géej yaay ko dem cëlbal ba naan nga ci leeri xëy bu ëskay bamba sanc gaay njeen di tabax ngay jàkka ko fa siyaar mel na siyaar na màkka yaa dambi mulkeeg malakuutu lay say leer ga ndoog leeri rasulullaay sa tur wu siiw na woo nga ahlal barri penkooki sow nga ahlal barri samay gi fu hotoyde nde yaharaw ceeɓo jirmi an mboolem ko nekk mbaayo mbaate muli layif guyum ngo waayo dawoɗamo kasu ɗohde waare dawoɗamo ka kasu ɗohde waare dawoɗamo kasu o ko ɗohde waare ko tabbi cib holam du tabbi naari waƴƴule si yo hiɓɓuni yeɓ yellu yomo wujo o sooda tabi yellu sa yita joyi durus kitaballahi yi sama ngay tagg rasulullahi musulam sohla ba wañek jaamu jubog borom haras lamasdi tamum wakilu ak faj ajo tay woyof lu ak wakilu tey faj aajo muñ ak lewet cey balla ay saak saajo am jàmm boole ko bari jaloore maanaam nga lottal na ñoo doon ay fóori mosula jëf ruqi sa mbaa dagan na lu ñëpp xam lay jëf du ju yoog sunna difu ko jàmm mosula doon maamuuna fu masarom bu ñëpp xam ne mooma daawul nelaw guddi du lekk ciw ñam lu weesu ñetti tib bi laay lii am mosula nekk fenn ngir sutur lu naka jóg leen fekk mu sarang lu xàkkiim la woon fu masa tollu yeete waaju ko noosoo yiwu yokkul joote teral na laar teral wolof ak soose yeesal na ponki diine naatal suusi billaay sam kem mës la feeñ ci dun yaa te dootu feeñ mukk bi dooni sun yaa yaay mufradum àllam bu leen ko jamhu way rasula tasniya sàkka jamhu banam ba mee xooyañ omarul fuuti yu bu mu wëndeelu kooka muy suufi yu di diine Mustafa melak ca li jiitu na diine Mustafa melak la jiitu te yoonu Bamba mel ci yoon yi jiitu ngir Mustafa xaatimul anbiyaay Cheikh Bamba mooy xaatimul awliyaay su ngeen ma dégloo tuuti yéen waa Sénégal ma bamba sayidi rijal su ngeen ma dégloo tuut yéenu Sénégal ma wax fi tuut ci bamba sayidi rijal bu leen di woyofal sëriñ gi ngir kañaan ngir moom la réew yónni ngir moom la yàlla yónni réewum soodaan tagramul ibadu indallahi ak sarum taxawan bilasti bàyyi déglu ma dellu wax la nga wóolu mbiram yën dëppoog mbirum rasulum ngirum saxal moxtaari suufus màkkam ca la juddoo fekkoon na foofa jàkka nee nañu amal fii li mooy taarix ba ba ñu ko yónnee la sañ ci ba am nañu fukk am na fa fukki sotti Cheikh Bamba nee nañu ca ama saraha te feeñ ci doon yaa am ñu naan bi saraha ca suufu Mbàkke googu bawal fagg arba li la ñu siiwal seeti leen taarix ba marhaba soxna jaara yaa xam daraja sa doom ji kum gërëm mu ànd ak maxraja marhaba soxna jaara yaa am daraja sa doom ji kum gërëm mu ànd ak maxraja ahlan wa sahlan yal na yàlla la wa sahlan maa ngi lay siyaare ku wër sa xabru bu bu delloo waare jaaraama soxna jaara yow lan yaakaar sa dooma tox Mbàkke di xotti bil waar marhaba soxna say borom martaba saaroy yaraaru ak xayra man la ba ahlan wa sahlan yàlla na yàlla fay la bi sa doom ju mbër la ba mu amee ndigal ci ber aw yoonam min mustawal muxtaar may wasilaam la daal di weesu mbàkke sañ ci Touba makkaa di ba moo di Touba nga ne li Cheikh Bamba mënee su koo lim mbirum Serigne Touba mënee su koo xam ma soobi gëm ba nekk saalikiina ak naa jaamukat ya nekk naa sikiina ci leeri Bamba la ñu nitee ngir ma jaare ma maami mbër ma sañ ci dar ma mbirum Serigne bi ak la day jaar jaaram xajul ci way wolof la géej la woon bu fa mu toll baawaan walal na waa dër walal waa gaawaan lim def ci ay xar baax mais su ko lim lim def ci ay xar baax ci réewum Soodaan jomal na gaaña askano ca la ladali biir kajoor ba réewum njàmbur raam noo leneen baa doole mbaate muy buur sëriñ sonoon tax def ba ñuy barkeelu ci seeni daara ñuy boroomi mbooloo raam loola leen ku nekk naa ko mbakke yaa xame ci abi nga sii ni barke seexal na seexal yu seex yu seexal at ay mbooloo seexal na seex yu seexal at ay mbooloo joxe lu ëpp xel jëfam du suulu yaa atte yaa atte ànd sëriñ bi bul fàtte gaañ a ànd sëriñ bi bul fàtte gaañ a àndandoog sëriñ bi di daw guddi guddi bëccëg li wacci rab bi ñoo gore ñoo maandu te ñoo am daraja ñoo sarangu ŋàññ ñoo am maxraja ñoo àndandoog sëriñ bi réew yi gànnaar ak jolof di tumuranke ñooy góor ñoo wuutu gaañe woon badar billaahi jaay seen bakkan ànd ak rasulullaahi ñoo ñaari aarifiina ñoom laa wóolu ñoo bari ay jaloore ñoo wakiilu ñoo jar jox hadiya tey siyaare ñoo ñaa sigal Cheikh Bamba doomi jaara am na ci ñoom ñu ba faj ma sóobu am na ca ñoom ñu gëm ba far ma sóobu far bayi julli aw ca ngir ma sóobu te jannatul waxma la ñuy fanaane te jannatul maxwa la ñuy fanaani dëkk ak rasulullaahi daam du cuune am na ca ñooñ fu ñu toll fu ñu mas a toll luy taalif na Seexu Sàmba Jaara moo doon xaarif am na ci ñun daanu gis rasoolu na ko ñu sëriñ bi am wusoolu am na ci ñun seen ndaw ya daf daa yaale yor sëriñ ba la ñu am lil weel yi daa nga ci suñu ay ndawam rombante te duñ xamante am ci ñuy yóbbante am ci ñun dañoo gëroog sëriñ baa ba ñu faatoo ngir gëj a am rabba am na ci ñun daawuñu tekki laxasaay guddeeg bëccëg fu ñu toll mu leen kaay am na ci ñun daawuñu toog fekk làgg am na ci daawuñu toog di làngale fuñ ma sa toll jàng mbaa ñuy jàngale sëriñ bi duy na leen ci leer yi baatin ba ñu duyal ñeneen billaay yi fenn kuy tagg bamba war nga faa taggaale ñi ànd ak ñoom fu ñu toll ñaale ngir moo di ilimaan ja ma moom ya fu ma sa jëm ñu dar ko yëri yëyeem ya seen ñaq baa waral ba xeeti sikki ñu di ko xeeñoo tey bi xëyri sakki xeli ñu daa dawal xadimu taaxaa moo tax wataak saxar daw ne leen xaa seen buus ya ak seen buus ya ah, seen seen marwa ak buus ya ñu daa rootaane moo wàcce kees yi li meraat yi daane taxawlu naa ci ñoom ci li may lim doy na kenn mën la lim seen i ngëneel ngir yaana sëriñ bi Mbàkke li nga def ci saayir kenn mënu ko lim Mbàkke ball yaay de yaa dem ba géeji Congo ak Conakry raw nga ralaanu wallaahi yaa gore sax lima liberté réewum senegal liberté gànnaar yaadi mu njëtu rijal sa xalima liberté di um sénégal liberté gànnaar yaadi mu njëtu rijal bi lay yow yaa tax ba réewum soosee xëy jàmbu dal di àndaloog français réew yëpp yaa leen may bi xëyri sakki luñ mës la am jaajëf sama waa mbàkke bii loon ak soudaani yaa leen boole sembal nga xamal nga leen bi xidmati rasulim ngir ka defoon defoon daawuda ab xalifa ci sooso kooka def na ab xalifa ngir ka defoon daawuda ab xalifa ci suusi kooka def na ab xalifa yaa app ab sañ-sañ kalaamu li yaa gën a da dumbar ma ruuhu li alayhima salaamu rabbi naasi te yàlla xajal na pexem xannaasim alayhim asalaamu rabbi naasi te yàlla xajal na pexem xannaasim yaa wutu yonnen yaay borom maqaama yow rek yaay yoo ñu naa jaaraama yaa wutu yonnen yaay borom maqaama yow rek yaay yoo ñu naa jaaraama sant la war nanu ndi yaa di arif jaaji fi bàyyi mbër ma sañcoon te ayif sanc la sant la war nanu ndi yaa arif jaaji fi bàyyi mbër ma sañcoon te ayif ak baloor yi yaa leen indi jaaraama bàyyi mbër ma sañci ndindi sëñ su mag si yow la ñuy siyaara nan sa mbër mu mag ma bàyyu baara sa njàmb goo toj xol yi naatal suusim yaay bàyyi seex yaay bàyyi mbër ma sëñ ci tiibu naf si yaa ami ceeb ma nga sii ni ba yaay bàyyi seex ab du ma woon ca ba yaa tax ba duy ceebu di tàngal warga yaay bàyyi mbër ma sanc ci bukki barga yow loonu wax yow mbàkk yaa doy saatir yow yaay di bàyyi mbay ma abdul xaadir yaa nu fegal yow mal xiyaam ja ima yaay bàyyi xilu ibrahima dolli ñëw Mbàkke sama yëqa njul sa dooma gor diggante bay laa ak njurul yeesu sa jaam ñi yow bil sa banque yooyu mii di bàyyi Cheikh su ay bu Mbàkke sa póot mu set mu tee noo yóbbaaleem yaay bàyyi Cheikh Abdou Samad yaa baax le sëriñ bi yow nang nu fegal su alxalaa yooyu mii di bàyyi suñ sëriñ bi Murtala naa yal na sëriñ bi boole yoonu murit bañ ànd doo am doole mu ci lépp lu gënul bi bés baa mu boolee leen yóbbu ci kër yoon nen baa wooy wii la yal na doon jubóog murit yi te yal na na saxal pexe murit yi ba yàqkat yi ñëpp bokk jaaxle ànd ak ñoo sëriñ si baax le amin ci barke Moustapha ak rakkam ya ak darajey Cheikh Bamba ak seexam ya julal ci yoon na ñëw tefar taxawlu salaa alayhi laahu moom lan wóolu waali wa saabi lah bi abi yowmal xiyaam yàlla nu gis sëriñ bi amin yaa rabbal ñu ngi sant sant bu baax sant bu baax yàlla na yàgg sëñ Ismaïla jataay bi yàlla na yàgg yàlla na ngeen ko yàgg def te lépp boroom nangu ko ci saayir ak ci baatin koy damoo ku de daf lay damoo koy damoo ku ne daf lay damoo danaa wax nag naan ci ñett la gën a niwoo diggante way jur ak doom diggante ab sëriñ ak taalibeem diggante soxna ak borom këram kenn ku ci ne damoon day damoo ko ca des ne ka ca des bu ko sëggalut siggal ko ab taalibe day si day moom ab sëriñam ab sëriñ day damoo taalibeem wayjur day damoo doom doom di damoo wayjur soxna day damoo borom këram borom këram it di damoo soxnaam kenn ku ci ne bu ko sëggalut siggal ko yéen sëriñ bi siggal na leen waaye siggal ngeen ko ndax bis bii day. benn bis bu ni toll ci diine lislaam amut daa mel ni nit ñi dañ koo réere waaye bis bu ni toll amut bis bii wallahi al bis bu ni toll amut ci diine lislaam laa wax ñu nekkoon fii ànd ak seen jàmbar ja di leen fàttaliku suuf sii day bis ba muy wax ci ñoom yàlla nañ ko fekke suuf si dana leen wax suuf si seere la dana ma sa wax de yàlla dana ko wax loo ñi moomoon teen bii seen jàkk ya nekk fee seen bis bii àddina jëpp a ko war a yëg àddina jëpp ko war a fonk lox lu defar tey ak ëllëg la lu defar tey ak ëllëg la bis bu rëy la bis bu tedd la benn bis féetiwu ko yàlla na ngeen ko yàgg taxawee yàlla bu leen dara dogale yal na ngeen fi yàgg barke borom Touba Xaadimu Rasuul barke pàkk bii nga xam dana ma sa wax li fi nekk dana ma sa wax garab yii fi sax suuf si ndox mi lépp dana ma sa wax bis bu xalima yi Serigne Touba yi di nettali mbindum sëriñ Touba bu keroogee la suuf si di wax xalima yi danañ wax. mboolem xalima yi danañ ma sa wax li sañ Tuubaa bind lépp ko xalima yi danañ ko nettali maa la wax loolu man mbay bis boobu yàlla nañ ko fekkee ndax ku ko fekkee taxe nga maa ngi bëgg a jàll baax na foofu bis boo xam ne nag lii sëñ Mbay Ngiraan wax ne benn bis bu ne toll ci lislaam amut ak a neexoon nit ñi dégg ko ni mu ko waxe kon danañ ci jële loo xam ne mënuñu koo jële ci leneen ci lislaam ndax suuf sii dey kero ba fi borom tege tànkam rëdd fi këram gii rëddal leen seen kër gii la fi seytaane noppee teg ab tànkam te bëccëg bu ne sun borom dana gërëm suuf si ay yoon te gërëmewut suuf si lu weesu ñu fi tegoon seen tànk fii ñu nekk soxna yii fi nekk xam nañ ne pàkk bii fi la seen baraag yi rangoon seen daaree alxuraan yi nekk ci seen teen biñ daan roote nii koo ca seen ma nga ak jukkiib alxuraanam yor daaraam ca buntu néegam walla mu yor jukkiib xasidaam léeg-léeg borom sabadoor ba na tëll ci bunt yi wala ndawam na tëll ñuy baagante di wujj sëriñ tubaa ak dina ci borom bi subhaanahu wa taala ñooñee day mbooleem ku ñuy dégg tey jii di ko naw ci njabootu sëriñ tubaa gi ndab yu sell yii ñoo leen defoon ñu mu doon ñoo xam ne ku sëriñ tubaa amoo leen ku sëriñ tubaa amoo leen ñu liggéeyal fi yàlla liggéey boo xam ne benn liggéey it mësu koo féete kaw ñooñu bu ñu demee tey am na ci ñoo xam ne seenu njaboot nekk nañ fi ba bàyyi fi ak njaboot am ñoo xam ne seen doomi sëriñ ya bàyyiwuñ fi ak njaboot te ñoom ñëpp dem nañ barsàq ñooñu kan moo leen war a wooteel bi suñu fàttaliku leen hinda sikri saalihin tansilu ma dañu wax ne boo dee fàttaliku nitu yàlla ku baax day wàcc yërmande yàlla waaye saalihaat yi nekkoon fii àdduna musta indi ci suuf ku leen gën ku leen gën it mosu leen fee fekk bañ demeet ku leen gën ñëwaat ginnaawam ñooñu nag dama yaakaar ne kuñ mën a fàttaliku rek ci ñoom ñii lañu war a njëkk fàttaliku te jëf ngir yàlla dëgg jëf dëgg dëgg te ba yàlla tax danga naan ba ma koy jëfi fekkuma fa ko ma fay jëfal lu tax nga di ko def yàlla yàllay kese barab bii moom ku fi ñëw yàlla képp la fi andi ndax amul kenn koo fi fekk si ña ngay fekk dem nañ seenu njaboot dem nañ ñi fi nekk amuñu sag pay kon saa yoo tege sa tànk ca barab bi yàlla ay kese tax te jëf jooju la yàlla gën a gërëm kon fii man jort naa lool ne tey jii de ku fi teg sa tànk ñu jéggal la say bàkkaar moom ndax wóor na ma ne moom danañ ko ñaan yàlla ñoom kon wóor na ma ne ku fi teg sa tànk rek ñu jéggal la say bàkkaar ku am bàkkaar it du fi teg tànkam fii munta bari nit mun munta bari pexe ba ñëw fii te du ne sun daa neex suñ borom ndax sëñ tubaa moo ñage woon barab bii sëñ tubaa ko ñage woon ba seytaane du fi dugg moo ñage woon barab bii ba ku am bàkkaar doo fi dugg ndax kuy def bàkkaar du fi dugg te ñagub sëñ tubaa du ñàggiku ba at day tukki ñagub sëñ tubaa lu sëñ tubaa ñàkk ba at day tuuti du ñàggiku kon fii nit ku ànd ak seytaane mënu koo bëtt ba dugg fi am pexe mayewu ko kon ku fi ñëw ku ne war ngaa sant yàlla di santaat nag bu baax a baax jigéen ñi nga xam ne ñoo ciy sonn ànd koog sëñ Ismaïla ñoom day delloo nañ njukkal mag ña mag ña delloo nañ leen njukkal bu baax ndax kat ku dem ku ne bëgg nga ku lay fàttaliku ku dem ku ne bëgg nga ku lay ku dem ku ne bëgg nga ku lay ñaanal te ñoom seenu ñaan day dellusiwaat directement. sëñ tubaa dégg naa am na mag mu ko mas laaj ne ko murit yi liñ lay ñaanal ndax mi ngi lay jariñ dara mu ne waaw waaw mu ne ko lum lay jariñ mu ne ko sun ñaanee sun borom dama koy dajaleel ba seen ñaan ya bari lool ma seen ñu ittewoog ñaan lool te kenn ñaanalu leen ma xettil leen ci ñaanu murit yooyee ma xool ñu ittewoo ak ñaan te kenn ñaanalu leen ma xettil leen ci ñaanu murit yooyee kon ñaan nga ñuy dajale fa sëñ tubaa ma ngay am njariñ waaye ñiit lañ bëggoon ci yàlla am nañ ko lañ bëggoon ci sëñ Tuubaa am nañ ko waaye seen ñaan yi dañ ciy xettaliwaat ñeneen dañ ciy xettaliwaat ñeneen kon daje fii jàng alxuraan daje fi jàng ay xasida daje fi def ay salaatu ala nabi ak ay bernde ngir fàttaleeku nituk yàlla ku amut tawfeex doo ci bokk. ñu gën a santaat nag bu baax ci ni nga xam ne bokk yi waxe woon nañ ma ko te xam naa ne sëriñ gën a ci ñëw moom mii ginnaaw buñ ko ñaanalee sëñ li nga am daa doy waaye daa ëpp. jërut wuti beneen bis jërut dem feneen li la yàlla séddee daa ëpp doyut yem ci daa ëpp bii bis benn bis bu ñu toll ci àdduna amut benn bis bu sëñ tubaa gërë gërëm bis bi it amut benn bis bu ñuy màggale ci pàkk bu gën a màgg bi it amut ndax suuf soo ci teg sa tànk rek sëñ Touba tegoon na ko ci suuf soo ci teg sa tànk njabootu sëñ tubaa gi ngay dégg gépp tegoon nañ ko ci mag ñi am ngërëmul sëñ Touba yi teg nañ ko fi fii nga daan dégg sëñ am satu jaxate yi dugg di génn sëñ Cheikh Fattako Diop di dugg di génn sëñ Makhtar Sylla di dugg di génn ñooñ ñëpp fi lañ daan dugg ndax sañ Touba du jaaxale boole lu ku fi dugg rek sab jigéen boo bokkal ndey ak baay fi mu lay yónni ci moom ngay génnaat sëñ Touba du yónni ab jàmbur mukk ci jàmbur googu organisation ku moom amoo ko kon ñooñu kenn ku ci amoon bakkaar amut kon nag ñi ngi sant di gën a santaat nag sëñ Bay Ngiraan ndax yoon wi bu amoon retraite dama naan retraité na moom li may bëgg a wax mën naa ko wax na ko da koo teewe sëriñam bu baax ba sëñ Mor Mbay Cissé toog nañ fii mu wan ko moom mii ak ñeneen ñu mel ne moom Cheikh Omar Foutiyou Tall booba maa ngi ci daara ji di jàng bañ noppee ba mu koy leeral daf ne yéen ñii gis seex Omar Foutiyou kat li leen ko wan laa leen bëgg wax ñu naa ah, mu ne gendarme ya sol tenue yu xonq ya ne ci buntu kër Senghor xanaa bu ab président di ñëw danañ ko gis ñu ne waaw mu ne waaye taxu leen a jóg nag président baa leen taxoon a jóg booba dañu moom mii xasida la bind ak alxuraan sëriñ Moor toog ca bangam ba ba ko sëñ Touba di joon nee na foofa sëñ Touba ko fa fekk na ko bul jógati te booba sëñ Basiiroo koy woo liggéey loo ko liggéey bu rëy mu mu dig mbaa yàlla moom sëñ Moor mu dig mbaa yàlla ak mbaa yàlla sëñ Ndiasse Cissé way juram sëñ tubaa fii la koy toggaloo ab laax ci njaareem gii sëñ Ndiasse baxal ndox ma ba mu bax muy wuti ab bakku sëñ tubaa soññi ko mu fab loxo ba def ci biir cin la fab sanqal sa di ca sotti ca naan ko lee mu ñor mbàkki bàll ca la ko sëñ tubaa waxoon na ko njaase mu ne ko mbàkk mu ne ko du ma sëf mbaam sëf doom ja loolu yaakaar naa ne sëriñam bu baax ba moo ko amoon moom mii mu ànd ak moom sëñ Mor fab ko teg ko ci loxol sëriñ Moussa Ka ci ak mujjam mu tërbiyewu ko ba am xaas ci wolofali sëñ Moussa Ka yi am xaas ci gëstu sëñ Touba. bari na koy dégg tey mu yor ab rajo di wax wallaahi alasim ci moom mii la daata ne ba xam la mu war a wax te du ngeen daje ba mu wan la ko bis bu yàlla sàkk du wor ma ngay gën a gëm ma ngay gën a bëgg foo seen lu bokk ci sëñ Mor Mbay see seen ko fa bis bii saa yu agsee lim ci mën a wax keneen ku ci mën a wax lu mel noonu amut ndax daf koo dund daa leen fekk fii ci njaareem ba noppi nag jàng ko li nga dund ba noppi jàng ko bokkut loo xamante dañ la koo nettali kon sëñ moo euh, sëñ mbay yàlla yàlla gën a dolli wér gi yàlla yàlla gën laa sàmm yàlla yàlla gën laa taxawu euh, la la la la la sa sëriñ bu baax ba waxoon waxoon ko ab Ablaye Naar sàmbu ak ñamel na ñoom kero bañ ko seetse fi yàlla dogal na fa la ma fekk da leen a wax na li ma sëñ Tuubaa may ci beneen tarixa bu du tarixa murit mayu ko kaneen mu ne ah, ma tariixa bu ne bu ma soxlaa ka sos tariixa ba sëñ Tuubaa wan ma ko bu ma soxlaa ka sos tariixa ba sëñ Tuubaa wan ma ko daan na nag waaye doon wàlli yu faneen nag doonub xaj ci kër sëñ Tuubaa dama koo gënal ndax man àjjana rek laa bëgg te bu lu ma bon bon bu ëllëgee sëñ Tuubaa desal àjjana may ma foofa la sëñ Mor nekkoon foofa rek la nekk moom i kon Cheikh Ismaïl ñu ngi sant di gën a la ñaanalaat nag jàmbaar ja xam ne bokk na ci ñi saytu woon barab bi ak waa barab bi mu di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha al Karim am ci taxawaay bu rëy taxawu leen ba bàyyam bu baax ba Cheikh Abdoul Ahad ñëw na ko ñii du ma la ko bàyyee yaakaar naa ginnaaw Cheikh Moustapha ni sëñ Cheikh meloon ci waa barsax gii ñoom la defoon ñuy léppam mu taxaw ci taxawaay bu se bu sell ba ni yàlla dogalee fii ñu taxaw nii alaaji maam na moom Cheikh Awa Balla Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ñi mel ne ñoom. xam ne lii kat xéewal la goo xam ne ku sàggan doo ci jariñu ñu di ko xëccoo kenn ku nekk di ci def la nga ci bëgg kon ñi fi teew maa ngi ñaan yàlla luy sunu bëgg lu mën a doon rek bu ñuy génn kër gi nañ ko yóbbaale luy sunu ragal bu ñuy génn kër gi na dem bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makiin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi mbokk yi ñu leen nuyu bu baax a baax a baax a baax tey sant yàlla ji fekkewaat bis bii te it euh, liñ fi war a wax lépp wax dëgg yàlla wax nañ ko kon dañuy gàttal tuuti rek suñ ñuy sant ñi fi wax ñëpp ca li ñu wax lépp loolu rek lañu waroon a wax ñoo xam ne kon liñ war a jële ci bis bi rek li ñu war a jële ci bis bi rek lañuy fàttali ndax euh, barab bi ku fi ñëw rek yaakaar naa loola war nga koo fàttaliku laxad kaana fi qasasihim ibra li ulil albaab la sunu boroom wax euh, ñoom seen seen eh, eh, xisas ya ku am xel rek warnga nga cee fàttaliku ci it eh, fa bi hudaahum loolu rek moo moo waral bis bii nii ca loolu weesuwut li fi taxoon yàlla yonante bi yàlla ñëw fi ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam ak xaadimul Mustafa loolu rek moo leen andi woon muy jaamu yàlla te teg ko ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam is fi itibaaha takunu saalima wa fi ixtilaafiha takunu daalima inna mahabbata al ilahi tunaal illa bi xafwil mustapha babi nawal kon loolu rek moonu moom lañu war a jëlee ci bi ba sunu ñaanat sunu borom mu fekkee waatal waatal nu ko ay yoon yoon yoon ñi ngi sant ñi fi teew ñëpp ca ñoo ñu dénk sunu bopp rek di leen dénk loolu maanaam jaamu yàlla teg ko ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko sëriñ bi bëggee woon wasalaamaaleykum wa rahmatullah na ñëpp tàllal amatul bisimilah bëgg amin tàllal leen ñu doon liggéey ak ñu nekkoon ci waa ñeen ñëpp sëñ baa ngi leen di ñaanal amin barke si Ahmad Kala amin barke si Mbasir amin ku nekk nga ne jox ko loxo